bisimila ma dikk ji nag si seen revue de presse locale tey li Kër Massar info xëy xëtal ñu ci xët bu njëkk bi mooy coow li doxoon ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Adama Sarr le maire de Kër Massar Nord ak ki nga xamante ne mooy honorable député Moustapha Meng ak ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diary Sow ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Cissé di coordonnateur les patriotes Pastef bu Kër Massar li doxoon seen diggante di problème mu ay fo documents tey nag moom la tribunal bu sàkk ko ñu daan ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diarry Sow ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Cissé juróomi weeri kaso ak cinq mille yoo xamante ne dinañ leen ko daan ginnaaw bi ñu nangoo ne problème bi ay faux document la waaye ki nga xamante ne moom mooy Adama Sarr ba ko waa Kër Massar info laajee ci xibaar boobu dana daan ya intéressé wu ko la ko intéressé kay mooy xamaloon waa askanu Kër Massar ne ñi nga xamante ne ñoom la ñu tudd fii nii dañ doon def ay njuuj ci ginnaaw li nga xamante ne moom mooy doowu waa Kër Massar waaye ñi nga xamante ñoom intéressé nañ leen mooy ñu bàyyi Bilal Diato mooy waa yeewi askan wi Kër Massar Baraka yi aadama Sarr ak ki nga xamante ne mooy Abdoul Aziz Diané ak ki nga xamante ne moom mooy le président du conseil départemental de Kër Massar Babacar Gaye ñoo daal di nag woote woon ab ndaje woo woote nga xamante ne ñooy du xibaar yi pour exiger ki ñu bàyyi si lu gën a gaawandi mooy ki nga xamante ne moom mooy le maire de Kër Massar Sud euh, Bilal jaata mi nga xamante ne bokk na ci Pastef les patriotes bu waaye Pastef les patriotes bu Ousmane Sonko boobu noonu xaaw tuuti mu tas ndax ay responsable jóge nañ fa daal di wutali ki nga xamante ne moom mooy benn bokk yaakaar ka ca njëkk di Maguette Diouf Sarr di adjoint au maire bu Kër Massar noor dem na APR ka ca topp di Cheikh Tidiane tal di responsable jeune bu Pastef dem na APR ka ca topp itam di Ndéla Fall itam di responsable des femmes dem na APR APR googu noonu itam ñi leen da tontu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ñooñu noonu génn ne dem nañ fi nga xamante ne mooy APR bokk ñu tey Pastef bokk ñu ëllëg Pastef kenn xamu leen Pastef kenn musu leen a gis ñu yor carte Pastef kon nag bu ñu demee nañu dem seen bopp rek te bañ a tuumal li nga xamante ne moom mooy deru waa Pastef bu Kër Massar Kër Massar googu noonu nag événement ba léegi mu dugg la ca des bareetur muy le Bercy de Kër Massar le Faramarène le Golden Boy de la musique sénégalaise ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa Diagne Events ñoo war a amal concert bu rëy yi concert bo xamantene ne ba Kër Massar de Kër Massar ba legui musuta am fu muy amee mooy ca terrain Yékini moo nekk ca wetu 71 ba janook li nga xamantene ne maison de la femme janook li nga xamantene moy le foyer des jeunes fa amal le 29 inch'allah, a à partir de 22 h ku fa ñew rek itam di nga daal di dund lu neex concert bu neex concert bu sap ba sa paaral kon nak entrée ba 15000 francs VIP 10000 francs table nak sous réservation lay doon mun nga wote si 78 102 96 22 77 224 25 67 ndaw Rey Aka ak ki nga le phénomène de la musique sénégalaise Wali Ballago